fan yële ci gannaaw ñu gis benn publication bu génn fii ay nit di mettit lu dara ñu wax ñu tudd leen la famille Dupont di mettit lu ñoom li leen dal ci benn événement bu fi am bi nga xam ni ñun fekke nan ko mais dafa mel ni nin ko traité dafa dëng yoon parce que suñu nee bu Tahibou Ndiaye bu Ndiaye dafa détourné suuf jaay ko baam ay milliards am ku topp ci gannaaw naan déedéet deful dara amul dara moom dafa pauvre ndeysaan mu dem moom ba mu transiger daal di fayaat pour mën a moom boppam ñetti milliards ak genn wàll lu topp dañuy posé wu question su ko defee ba pare ci affaire bii lan la mais dafa mel ni kenn posé wul boobu question on a fermé ce dossier la ñii seen réaction dafa yëkkatiwaat dossier bi indi ko feneen mooy attention au-delà de ce que l'État peut faire li nguur gi mën a def par rapport ak ku jalgati suuf lu nguur gi mën a def pour réparer lu mel noonu au delà de ça am na ay nit yi nga xam ni loolu dafa dal seen kaw daf leen perte loo dara daf leen ñàkk loo dara ñii nag génn waxal seen bopp ñun mënuñu woon waxal kenn mais loolu dafa newoon ci gannaaw il a ils ont porté ak à qui ñii daal di génn wax wax bu clair documenté ko tudd benn TF bu ñu tuddee cinquante 56 10 DG bu Ngor ñu ni ñoom Tahibou Ndiaye dafa ànd ak Ousmane Sonko ñu jëlgati foofu ay suuf def ci xaalis bu baree baree baree baree bare ñun mënuñu ko lijjanti amuñu droit avancer au-delà de ce constant la mais am nañu devoir en tant que xeexal Sénégal ñu jàkkaarlook ñi nga xam ni ñoom ñooy saytu fii lépp lu demee noonu choisir si kenn daal ni ko jógalkat yow mii nga seet lii askan wi war nañu xam mais it ñii tamit kenn waru leen ñiinloo moo tax le 13 février ñu bind benn bataaxal yoo nekk waa AFNA OFNAC ñu ngi leen jóg leen ci lii ñoom tamit ñu def seen liggéey tontu nañu ni nu incha rabbi dinañ ci jublu te lépp lu leer ci affaire boobu ñoom dinañ ñu ci informer su ñu informer dinañ leen wax. su ñu informé wul yi tamit dinañ leen soññaat te dinañ leen wax ni soññ nañ leen parce que c'est très important que affaire yu mel noonu am pourquoi parce que mënuñu supposer que nii nit sama pensée boppam ah, nit mën na topp ci gannaaw nit di dox ak moom. ba mu mën a fay ñetti milliards ak lu topp nga génn wër Sénégal di man awma dara nit mënul def loolu kon ne di wër Sénégal di mën benn train de vie bi nga xam ni man awma ko keneen amu ko te ñun ñëpp ay Sénégal am nañ ci droit te du am explication il faut que ñu arrêté di bàyyi ay nit ñuy tàmbaambalu fii ci Sénégal di taxaw di tëb di dal di étaler alal bi nga xam ne sa dafay déraisonnable du loo liggéey du lu salaire fonctionnaire du salaire cadre privé mais yow dangay ngay jékki rek am droit rek daal di wane ay xaalis te kenn du ci wax même bu ñu xamul source bi c'est inquiétant que réew mi continuer di doxee noonu ça c'est un appel fort que nous lançons pour que ñu arrêté di xool nit ñi nit ñi di foye alal di tàllal alal te liggéeyuñu di tàllal alal te wanewuñu seen njàmbat di tàllal alal te wanuñu ku leen ko may et dans ce cas là ce n'est pas une posture politicienne mais def di li nga xam ni war nañ ko bañ ñun ñii nous voyons quelqu'un qui traîne avec des mille des sommes d'argent extraordinaires un train de vie extraordinaire war nañ ci wax surtout nag su fekkee ni moom dafa lëkkaloo woon nag ki nga xam ni dem na ba mën fay ñetti milliards ba noppi mu waxoon ni kooku amul dara c'est cette question là qui est posée au-delà de l'acte que nous posons c'est allez c'est loolu la ñu invité presse bi mu bàyyi xel ci loolu parce que presse bi tamit moo amee loolu askan wi di di gëstu yenn situation yi di poser yenn question yi c'est fondamental sinon dañuy xaar rek ñu mel ni ñun wala keneen poser yooyu question ñu toppaat si alors que sans que personne n'ait fait cela la presse d'investigation a la responsabilité d'aller chercher des sujets d'investigation de porter les investigations et de venir éclairer les populations et même la justice elle doit le faire dans tous les autres pays du monde loolu moo fa xew ngeen baal ma transition bu ma def